wala naan la na nga sangoo mbir yi mbokk yi alxuraan ak sunna nañu doy ñaanu yonent saa sallam nañu doy jël leen téere bi tudd xisnul muslim moom mooy la citadelle du musulman nga daal di góorgóorlu jëfe mbir yi di ko ñaan yooyu yonent saa sa jàngale saxal ci yooyu yàlla moo lay aar ndax kat wallahu yaasimuka min annaas yàlla moo lay aar nag ci lépp lu bon ndax kat moom borom subhanahu wa taala moom moo am moom moo mën te lu dul yàlla rek neen la subhanahu subhanahu wa taala kon moytu leen gisaane moytu leen seet moytu leen di gunge ay nit wala di fa yóbbu ay nit wala boog même télé yi di publicité wala rajo yi di publicité jàppal ni yow mii di dem ci gisaanekat ci seetkat takkukatu téer ak yooyu yàlla da lay rëbb rëbb yàlla da la rëbb malaaka yëpp rëbb la yonent sa sallam rëbb la subhanallah gis nga kon bu dee sa kër lañ koy defee yàlla day rëbbaale kër gi bu dee sa télé yàlla day rëbbaale télé bi bu dee sa rajo sa rajo bi yàlla rëbb na ko te rëbbug yàlla nag ci ku dal mooy jàppal ni yërmande sori na la te ku yërmande safara moom moo lay jege yàlla na yàlla musal ci mbugalu safara ak mbugalu bàmmeel te képp kuy jëfe njabar wala dem ci seet kat seetkat gisaanekat mujj bu bon ngay am xool leen njabarkat yi mujj bu bon la ñuy am kon képp kuy dem ci ñoom tamit préparé mujj bu bon te nag mbugalu safara avant nga fay yegg sa yowmal xiyaama mbugalu bàmmeel fàttaliku mu bàmmeel ñu gunge la ba foofu bàyyi la fa benn téere du la fa fekk benn sëriñ du la fa fekk kenn du la fekk yow rek ak say jëf kon nañu tuub dellu ci yàlla bul julli bul woor dinaa la assurél yowmal xiyaama kooku waxul dëgg nax na la kooku sa noon la kooku nooy dawee iblis na ko dawee noonu xamal ni moom ak iblis benn lañ ndax lan mbokk yi yowmal xiyaama kenn du fa mënal kenn dara kenn du fa mënal kenn dara gis nga yonent bi sallallahu alayhi dafa ne Fatima doomam ne ko yow Fatima radiyallahu anha ñaan ma loo bëgg ci àdduna su ma mënee jàppale la ko waaye nag bés penc mënalu ma la fa lu dul lenn rek laa mënalu ma la fa dara sa jaamu yàlla daal góorgóorlu nga jaamu yàlla subhanahu wa taala inni laa ughni anki min allahi shay'a ana yonent boo dee boo nekkee doomu yonent nekk papa yonent nekk gis nga yooyu yëpp yàlla wax nañ ko ci alxuraan yonent yàlla ibrahim papaam nekk loon jullit gis nga fu mu mujjee yonent yàlla muhammad saa sallam nijaayam xoolal abu fu mu mujjee xoolal yonent yonent yàlla nuux ak luut xoolal seen soxna xoolal donc mbiri du ay kër mbiri du ay tur mbiri du ay dëkk mbiri du ay melokaan yoo xamante ni ñun ñoo ko formel suñu bopp nii rek ay mbiri du ay groupe mbiri du ay ay mbooloo mbir yi lenn rek la moom mooy que ni ragal yàlla teg sa tànk fi yonent yonent sa salam tegoon tànkam mooy alquran ak sunna jaamu borom bi subhanahu wa taala bañ ko bokkaale ak dara daal di teg nag sa tànk ci yoonu sunna yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam garde bon comportement lii moom mooy diine lu dul lii rek caaxaan la képp ku la ne da lay dimbali yowmal qiyaama ak lu mu loo ko fonk-fonk kooku bàyyi ko képp ku la ne bul jaamu yàlla bul julli bul woor kooku jàppal ni seytaane moom moo ko digal seytaane lay liggéeyal subhanallah te nag moo bari ñoo xamante ne dañuy solu mbubb diina waaye nag mu ngoog seytaan la ñuy liggéeyal ñoo xamante ne dañuy def ay tuur di rendi te yàlla taxul nekk di bokkaale borom bi subhaanahu wa taala di njabar laa ilaha illallah ay ay ay ay xaatim ay mbir yoo xamante ne yu doy waar la ay mbir yu salte gis nga njabarkat yi gis nga ñii nga xamante ne mooy téere ngeen di takk bu ngeen xamoon luñ ci bind wallahi lazim am na ku ma sa ñëw ci man ndeysaan ne ma dañ ko jox téere ma ne ko lii du dara ma tekki mbir mi xotti ko mais soo gisee mbir yu salte yuñ ciy def jël alxuraan di ko wëlbati di ko jaxase laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon moytu leen loolu pour nga ñoom nag ñu yegg ci yooy des fois dañ la il faut nga dem dem ginnaaw kër boo fay dem nga yóbbaale kaamilu alxuraan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wala jigéen bu gis réglam mooy gis mbaaxam gis nga deret boobu la ñuy jël di ci bindee mooy téere borom bi santal di ko bind ci kaw alxuraan ay mbir yoo xam ne yu salte la yow ragal nga ko rus nga ko wax sax subhanallah wala ñu jël euh, kenn ñëw toog ci alxuraan tuur ci ndox la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil yow nag nga déplacé wu jël sa doom ndax dafa nekk ci souci ndax liggéey la bëgg ndax lii la bëgg di takk ay téere ci ay oto di takk ay téere ci ay kër di takk ay téere ci ay place ndax lan wërsëg yow kan moom moo la bind du yàlla in yàlla nag moom moo yore wërsëg mi la bind moom borom sa taala moo lay rey te sa wërsëg nag doo dee lu dul sa wërsëg jot nga ko kon bokk